da ngay politique. politique non politique intérêt. politique intérêt mooy lan waaw man politique intérêt laay def. mooy lan politique mooy par exemple gis nga Macky Sall dama koy nuyu quoi. Mhm. sunu sunu kilifa la sunu sunu sunu sunu mooy sunu njiitu réew jox nañ ko gëdd bu mu am lépp dama lay jox exemple si moom quoi ñuy ànd ak moom ñëpp. intérêt la ñuy ànd ak ma ay intérêt réew mi de waxuma la intérêt nii de lan moo tax transisement am. lan. transisement. luy loolu. transisement mooy comme ki nekkoon si Idrissa Seck xëy suba ne maa ngi dem ci Macky Sall. transhumant waa transhumant waaw. yaa ngi dégg lan moo tax mu am intérêt parce que day xool opposition bi dañuy xool ñu takk seeni biir. yaa ngi dégg foo am ay 2 millions 3 millions par jour nga xey bi am ay 15000 20000 da ngay xey bi ci ak mën eh nguur kenn xeexa mom esprit bobu la Sénégalais yor ba ma dellu ci nguur ga jéem dugg ak wax président am naa mbooloo yaa ngi fen président dugg président jël la ak la parce que sa mbolo la soxla amul problème da ngay ñew mu keppal la ben fond nga nga wa yow li fo bokk ko bokkaguma fenn nag président woowu man si malik Gakou laa bokk ak Karim Wade noo la ñu boole ñoom ñaar. samay xarit lañ. ndax ñoo gaaw ci man. Hmm. ñoo gaaw ci man Karim Karim Wade dalaa mës a defal. si defal ma la dëkk daf may woo sax whatsapp. whatsapp la may woo whatsapp. ñoo ma ne ko mais ça fait longtemps rek mu tëgg. lu la may. duma ko wax. mais sa xarit la. sama c'est mon ami. Hmm. c'est mais Karim dégg naa olofam leerul noonu di waxtaanee. français. dégg mu ne mais mignon mais mais ma ne ko monsieur le président comment tu vas mu daanu su may làkk tubaab muy reetaan. sa xarit la. waaw Malick Gakou nag. yii koo koy jàppat bi koo koy jàppat bi kooku c'est mon ami un an. c'est ton ami. un an sama xarit benn bakkan la. ah ok. ndax xaalis bi. non même waaw ndax xaalis bi loolu bokk na si lu si tey bu la bu la makki woon nga bàyyi leen. non duma leen bàyyi naa leen ne carrément maa ngi ci Macky wa mo mais bu la Macky won nga ñaw bu ma woowee ma ñëw man Macky musuma lek dërëmam lu 200000 télé lay waxé dé may Amadou Sall domam tawam sama xarit la damay lek malik damay lek fofu sama xarit la am di daa mel yow li nga waxone sa papa deug la legui businessman li nga waxone parce que ñu bax ñep nga xam yaa ngi dégg damay lekk noonu noonu xamuñu baax ñi ak ak ñu bon itam xam naa leen bi ñu bon ñi sax laa gën a xam ko ñu baax ñi. ñu bon ñi maanaam. wuyu yi. ñi nga xam ne duñu maye ay sàmba alaar lañ. duñ la may. waaw man boo ma mayul man ñaan sax man yaa war xam sama àq sama yële fekk ma fu ma toog nga yëkkati ngëpp ne ma am. yow yaay kan. may mi ñëw. Mhm. waaw man man dama dama la doon ñaan. daay fekk sama àq parce que dof nga may jàppee da may gis mu commencé sourire <laughs> eh addi bi ñëw waa mais keroog nii may la waa jox ma nga ne lépp boobu nan la woon sax may la cinquante mille man du ma sa manquant du ma sa kulum ba nga jóge feere taal sa oto ñëw ba si man sama tànk yi taxaw naa ma ay lépp boobu euh, wala nga ko laajte fu may joué nga ñëw fekkee ko ñëw seetaan ko man maa du lépp ci mbedd man ci ay gratuite séquma ko yow fuk am nga fukki junni ma dajj la fi nga taxaw nga rofu fukki junni ma dajj la avancé woowu la problème nga rom ma ci mbedd bi naan xool ko mu doné manquant fo ma fekk ci mbedd nit ñi di ram rek xamal ne encaissé naa ba nopi mm. do do lepp ci mbedd kula kula kula carrière lepp mo gatt lo wax benn yoon to ko waxat te bu yagge bokay faral di wax dañ naan da nga sof mo tax lu ko jar da ko jar inspiration dafa biti deug la la tête reposée au retrouvoir.